on n'a pas accès aux produits halieutiques sincèrement on n'a pas accès tey tey suñu demoon sama usine il y pas de production dañoo taxaw nawet bi moom su ñëwee moom c'est mort on est en congé forcé on est obligé de se rabattre au port pour yéem am ay chargement ci bateau yi te nag soo demee port nag tu seras derrière des étrangers des étrangers les Sénégalais n'ont pas accès à la production au niveau du port les bateaux au niveau du port da ngay dem c'est les étrangers ñoom ñoo nekk ci kanam nga nekk seen ginnaaw ñu war laa jox comme nu mu euh, euh, nu mu ko sentiree les Guinéens sont forts actuellement les Guinéens ah ici Guinée Guinée Conakry Guinée Conakry ils sont ils sont actuellement au port du Sénégal di liggéey ci bateau yi nekk nag ay ay ay ay ay ñoon teg seen loxo ci bateau yi di liggéey ñun nag sénégalais ñoo xamante ne on a investi war a liggéey ki kii bi jël ay emploi nag on a des emplois on paie des emplois ñoom nag ils sont là ils ont quelques pays qui sont derrière ñu nekk ci bateau yi indi seen bateau di ci liggéey loolu dafa bokk ci la rey pêche bi pêche bi tey munoo dem benn dëkk nga bugg a accéder ci géej gi dëkk boobu noonu te jaaroo ci waa dëkk bi Sénégal daal malien malien dina jóge fële il a accès directement et puis ñoom duñ jël ay employé ñoom duñ jël ay employé ils n'ont pas trop de charge ñun nag vraiment pêche bi luñ ci war a waxtaanee ay mesures yuñ ci war a jël bari na de telle sorte que pour ñu mun koo jën gi ne fii ñu di ko nappee fii ñun balaa ñu ciy jot ñeneen ñi dañ ciy jot ba pare moom loolu la te ñoom ñoom mi nga xam ne ñoom ñoo yor seen usine di liggéey ci loolu ci production bi ñoom itam ñi nga xam ne ñoo ne di jaay di di ut produit bi di ko jaay ñoom itam ñu ngi jooy bi daal ki nga xam ne boo jooyee yow non je vous répète encore tey soo demee tey port de Dakar port de Dakar mool 10 laa la wax mool 10 c'est là le quai de 10 tu seras derrière un chinois uh-huh. ou bien tu seras un un guinéen ça je vous le pour am jën pour am jën. waaw mais ñoom nan la ñu mën a def ba bàyyi seen dëkk ñëw fii licence ay licence la ñu am wala. ay licence la ñu am. waaw mais ñi nekk ci réew mi nan ngeen doon xoole ba bi ñëw suñu réew di fi am loo leen mënta ah, xam nga ñun ñun on est des opérateurs économiques ñun def nañ suñu wàll man waruma dugg ci port bi sax bariwuma waruma faa. waaw bëri man production usine laay def. waaw yuy jëlee ci ci ki plage yi ñëw di may jaay may congelé ay sumbijun yi ñu ñëw di may jaay may congelé di exporté waaw ci loolu laay laay kii mais nag suñu demee ba finalement ñoom amatuñu loolu ñun on est obligé de se rabattre fekk leen fa nag ñoom ñu yor seen i liquidité vraiment mettre la leur la main sur tout ce qui est bateau soo ñëwee tey Guinée nga fay fekk wala Chinois. tey derrière ñun amuñu accès ci